ci teewlu bi mbokk yeeg xarit yi ñuy door xibaaru digg bëccëg gi ak li ci gën a fës njiitu réew mi jamono ji ñëpp a ngi ne tott di ko xaar ci ay kàddu yoo xam ne ni fas yéene ko fësal jëm kon ci mbirum li nga xam ne moom mooy dina wàññi am déet li nga xam te ni moom mooy mandat bi jëlee ko ci juróom-ñaar eh, te Euh, li nga xamante ni moom mooy euh, juróomi at conseil constitutionnel juróomi sage daal di ko jébbal avis ba nga xamante ni euh, kon joxe woon na ko ci mbir yooyu liggéeykat ya nekk ca SAPCO takk ay morso yu xonk cur ngir daal di kon amalop gereew la ñu bëgg mooy ñu daal di leen defaral ay CDI yi teg sa daal di leen jox cotisation sociale yi nga xamante ni kon ñoom la yellool teg si tamit wàññi seen i faral li ñuy faral kon di xuuf di seenuk payoor di ay ñaxtu yoo xamante ni bëgg nañu ñu daal di leen si dimbali yi ci régional bu Sédhiou jafe-jafe ya bari fa lool ndax daal section SUTSAS ba mu amalee pa assemblée général daje bu yaatu daal na fa fësal yii ponk ne daal faaw ñu càmbar nañu yore l'hôpital ba teg sa it di ñaawlu li nga xamante ni moom mooy xaay gi ñu nemmeeku ci mbirum payoor gi dinañ si toftal li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum tàggat yaram kon mbokk yi les ponk la ñu fas yéene yaatal léegi léegi. tey la talaata fukki fan ak juróom-benn ci weeru euh, février atum ñaari junni ak fukk ak juróom-benn mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu door xibaar yi ak euh, ki nga xam ni moom mooy njiitu réew mi jamono ji nag ñëpp moom la ñuy xaar euh, fii lekk juróom waxtu ndax ay kàddu yam fas yéene daal di fësal jagleel ko askan wi gannaaw nag ba ñu ko jébbalee avis ba juróomi sage wër kon conseil constitutionnel doon càmbar ci diirub benn weer ndax njiitu réew mi dina wàññeem déet li nga xam te ni moom mooy mandaawam jëlee ko ci juróom benn daal di ko yóbbu ci juróomi at loolu yëpp dina leer kon ci kanam tuuti. Euh, baneenub euh, jëfu ñaawteef am fële ca fi nga xamante ni moom mooy marché Ocass ca Touba Mbacké ay samba boy ñoo ubbi lu toll ci juróom benn cantine euh, daal di xuuf seen alal yóbbu fa nag lu takkoo takku doon ñàkkum kaaraange gu mat sëkk ndax yàgg nañu di ko jànkonteel saa su nekk ñoom daal saa su nekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy samba boy ya ñu ngay lëmbe dëkk ba nañ si ñëwaat du ñàkk laata xabaar yi di jeex ak kii di du Makhtar Sarr ci noonu lañuy xuus ba dem sa liggéeykat ya nekk ca SAPCO takk ay morso yu xonq cur ngir kon amalub grève ba léegi seen mbirum CDI ya am na ci kon yeexaay guñ ci nemmeeku teg si li nga xam te ni moom mooy versement yu sociale ya teg ca li nga xam te moom mooy wàññik kon li nga xam ne mooy seenu salaire saa su nekk ñu daal di xuuf tuuti ci li nga xam ne mooy seenu payor yooyu dañuy teewlu ki nga xam ne moom mooy Yoro Diouf kàddu ya mu dénk Thierno Daff ñun suñu droit ma la ñuy réclamer comme tous les sénégalais nuñ koy defee. droit yooyu droit yooyu ngeen di réclamer tey mooy lan. li ñuy réclamer mooy ñu contrat CDI yi nga xam ne ne ñun am nañu ko ba pare ñu ne nag du ko valider ndax moo ci des ñëpp am fii nii ñëpp am fii nii contrat CDI yi ndax fii kenn ku ne am nga ñaari contrat te yoon dafa ne képp ku signé ñaari contrat troisième contrat bi yoon dalay embauché verbalement buñ ko bindee buñ ko bindul yoon embauché na deux fois la ñuy versel fii billet taas la ñuy sama gars yi billet taas billet taas lañ leen di fayee ba pare ba ñu demaguñ moom inspection de travail ak dagg xaalis bi dagg yoo xam ne mën ñu la ko justifier mën ñu la ko justifier dagg salaire dagg salaire yoo xam ne mënuñu la ko justifier mën nañu la ko ne caisse sécurité sociale la koy ko yóbbu wala IPRES lañ ko yóbbu yow xamoo loolu fuñ ko teg chaque jour ñu indi fi ay nit seen nit di leen di fal si ñi kanam te ñun am nañ fi dix ans dix ans ferme am nañ ko fi di liggéey te kenn mën loo ambool si kër gi bot day set nit falu ñëw jëlee fee ay mbokam ñëw ñëw amboosal leen suñu kër gi la ñu bëgg a arrêté waxu affaire politicien politique yu ñuy dugal ci biir kër gi am na nag menaces yi ñuy wax ne ne dinañ dàq mais sax ñu fa dàqee nit jour boobu dinañ arrêté liggéey bi te dinañ jamarloog ñoom ñun nag ñun nag duñu jalgati yoon tant que ñoom ñu ñu jiite jalgañ jalgati wuñ yoon gere jere bi nag amul app ñun ci yoon lañ koy teg lépp li nga xam ne ne yoon may nañu ko ci kër gi dinañ ko am ci nii wala ci naa jamono jooju ci hôpital régional bu euh, Sédhiou léppa ngay war-war yi yóbbee nag waa SUTSA section ba nekk kon foofee ca Sédhiou amalub daje bu yaatoo yaatu euh, daal di fa yëkkati nag yii le di ñu càmbaraat yorin ba teg si càmbaraat it lan mooy waral saa su nekk li nga xam te ni moom mooy payoor yi di amuk yeexaay leeral yi ak Lamine Bayo bërëb fajukaay bu ñuy ne hôpital régional si ju fuñ toll nii moo nekk si diggante boo xamante ni kenn xamul nu mu ne ñi nga xamante ni mooy kuréel bu ñu ne SUTSAS te ñu fa nekk ñoom nee nañ fuñ toll nii li nga xamante ne mooy seen peyoor ñu ñu koy yéex a jot da leen metti tey. jàng quoi du tey. di wax li ñuy yaakaar ni ay mbirum caaxaan la mais fu mu toll nii du mbirum caaxaan parce que euh, Sédhiou euh, bërëb la boo xam ne euh, ñu bëre. seen loxo jotul seen ganaaw alors ñu nekk fii di liggéey ñoo xam ne hôpital moo leen war a di fay ñu dem ba ñu toll dëmb rek lañ leen soog a fay seen salaire te jeexagul am na ñoo xam ne dañ leen dee virer seen salaire ci banque yi bon mais ñooñu ba léegi jotaguñu seen xaalis alors am na benn personnel bi aussi seen motivation jotuñu ko te loolu yàgg nañ ko ñaxtu di koy wax di koy bind xam nga di koy jox autorité yi mais ba léegi daal gisuñu nit koo xam ne dafa ñëw si pour jéem ñu laaj wala jéem a saafara daal suñu suñu suñu. ñoom nee fu ñu toll nii amatuñu lenn lu ñuy def ndegam gis nañ lépp loo xamante ne mun nañ koo def naxante wala jaar leneen li nga xamante ne mun na bañ a rëkk liggéey gi waaye. parce que dañ lu yàgg la daal dañ ko yàgg joytu on a averti o na écrit bind nañu wax nañu ci presse def nañu lu nekk mais sottiwul moo tax tey ñu ne bon ñun dee suba dañuy takk suñu brassard rouge pour képp dugg si hôpital bi moo xam ne ni bon dañoo am métit buñ ci weesooyee bu sottiwul mais ñu def sitting ñu defee sitting bu sottiwul mais ñu dem grève moo xam 24 heures wala 48 heures mais après dañ koy wax suñu militants yi léegi mais loolu bu doxul mais ñu def rek lu ñuy wax dañuy euh, rétention de l' information sanitaire maanaam lépp lu ñuy am comme rapport lu ñuy bind lu xew fi ci biir hôpital bi dañ koy téye duñ ko joxe. ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne ñoo ŋànk nguur gi ñu jóg taxaw xool doxaleen hôpital bopp ndegam fuñ toll ni saa nii dafa ñëw ba dëkk fa te hôpital bi je pense que audit bi sax même bu ma ko waxul na am parce que du tey la ñu yàgg joytu je pense que ñëpp ñu fi jaar dëgg nañu presse lu ñu doon wax audit bi il faut que mu am audit bi il faut que mu am parce que koo xam ne nii mënoo xam euh, jumtuwaay yu nekk fii ci hôpital bi naka lañ koy doxalee puis aussi lu tax ba lii am mais je pense que euh, état war na jël responsabilité mu defaat une audit plus profonde aussi ko li nekk hôpital régional Sédhiou mooy ni que fekk euh, liggéeykat yi seen payoor duñ ko jot a am dafa di loo xamante ni du lu bees ñoom jafe-jafe ñu ngi koy am matériel amuñu ko am ñoo xamante ne spécialité amuñu ko loolu tax na fuñ toll nii daal jaaxal na ñëpp Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. jërëjëf Lamine Bayo yeneen ni liggéeykat a ngi nii euh, nekk si jafe-jafe di waa Sudaor ba nekk kon sa Jurbel euh, ñoom nag ñu ngi sàkku ci nguurug Sénégal ñu daal leen jàppale ci li nga xamante ni moom mooy ay financement di ay dañ leen ko jox ngir puus leen tuuti ndax daal ba ñoom amalee daje bu yaatu fësal nañu fa li nga xam ni moom mooy njaay mi atum ren ji amuk lajj goo xam ne seetlu nañu ko si te boo moyuwul seen usine kon seen usine dina tëj uh, ay buntaam bu fekkee ne rek njiit yi gaawuñoo daal di wàccook li nga xam ne mooy seenu digg ñu lu ki nga xam te ni moom mooy ci uh, njaay moo jiite syndicat ba kàddu yi lee la dénk Modou Makhtar Sarr képp koo xam ne nit nga ku am dignité boo xam ne da nga koy da koy da nga koy sauvegarder buggoo ñu lay may li ngay dunde buggoo ñu lay may li ngay dunde te loolu mooy li nga xam ne mooy situation liggéeykat su ne war ñun am nañ lu ñu war a mën a liggéey loo xam ne bu ñu ko defee dina leen jàppale pour mu woyof ci ñoom te gën a dagan ci ñun mooy ñu jox ñu lenn ci xaalis bi nga xam ne dañ ko oon pour jënd ko gerte gerte amuñ ci li nga xam ne moom lañ ci soxla woon mais li am solo mooy société bi ñaari tànk lay doxee mooy day raffiné di conditionné di jaay diwlin. mën na defar li jur yi di dundee te loolu Sénégal soxla na ko bu baax a baax a baax donc loolu moo tax ñu ñuy woo nguur gi pour ñu ñëw rapidement ci xaalis boobu ñu jël ci jox ñu ko ñu doxal activité yooyu pour mun a gagner suñu salaire honnêtement pour aussi mun a contribuer tant soit peu ci ci ci économie réew mi su ko defee affaire bi mën a dox woyof ci ñoom le temps ñu pare cahier de charge yi def ak yooyu mais daal loolu bëgg nañ ñu baral seen loxo pour mu gën a gaaw ndax loolu gën a gaaw a mën a sotti parce que toog te defoo dara daf see dafa métti trop ci ci ci ñi nga xam ne ñu ngi liggéey surtout ñu di leen di fay loolu daal la ñuy ñaan ñu gaawal seen loxo. Jurbel la ñuy bàyyeekoo dem ca Ndofane Lageen foofu nag jafe-jafe ya boo koy euh, lim fi ngay yendu loolu nag di euh, jafe-jafe yoo xamante ni euh, ki kuréel bi ñu dippee émergence ak développement maanaam daal suqali fi nga xam ne moom mooy Ndofane moo yëkkati yi les kàddu di sàkku ci njiit yi ñu daal leen jàppale ci lu li ñu teewlu ci kii di Cheikh Ndiaye moom mooy président boobu lépp mouvement yi les kàddu la dénk Amadou Li Mbaye ya marché boo xam ne dañoo ñëw rek teg ay toiture rek bàyyi loolu soo ñëwee am na ñax am na ngelaw am na lépp loolu du porter développement difficulté yooyu gis nañu ko di dans le domaine de santé également gis nañu jafe-jafe yi Ndofane fi mu toll waratuñu wax ay poste de santé Ndofane fi mu toll dañoo war wax hôpital ñoom hôpital waratuñ wax lycée boo xam ne CM la ñu jël transformé ko en lycée mu am sept sixième yoo xam ne ñii suñ jàngee ngoon ñii jàng suba loolu dafa war a dakk problème bi manque d'eau bi wax naa ko manque d'électricité wax naa ko parce que aussi lenn dafa am foog naa ne am na ko fi wax extension électrique ak adduction d'eau domaine mairie la damay laaj ñi nga xam ne ñoom lañ dox bi liñ waaw parce que dafa jafe suñu mënul def lépp sax ñoom parti lu ñu def bàyyi beneen parti su doon chaque année bañ ñu ba nga xam ne 2009 nit ñi jox lañ leen dëkk bi Daaru Salaam nekk bi su doon chaque année ñu jël benn tronçon boo xam ne danañ ko def addiction to yaakaar naa ne dañuy sori loolu ce diwaanu Thiès département bu Tiwaawan fa la Ngémbe nekk di ab dëkk boo xamante ni dugg fa wala nga génn fa day mel ni jéggim siraat teg sa li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe ya dëkkee bokk ci mbirum wér yaram wàllum ñàkkum ndox ak jumtukaay yu mucc ayib rawatina fu xale yi di jàngee loolu nag yóbbee askan wa jamono ji ñu yëkkati seen kàddu di dànkaafu ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit yi ndax gis nañ ne saa su nekk nguur gu fi romb rek jafe-jafe yooyu la leen di bàyyeel góor gi Samba Ndiaye ngémbe ci département bu Tivaouane dëkk boobu nag sore lool teg ci itamit ruqef yi wante itamit yegg fa jafe lool ndaxte yoon bi nga xamante ni moo jógee ndànd ba ci dëkk bi kat baaxul dara lool moo tax nag askan wi di sàkku ci nguur gi ñu daal di leen koy goudronel wante askanu ngémbe kat yemuñu foofu ndaxte ñoom gis nañu ne lii di wàllu wér-gu-yaram ak ndox yitte la itamit ci ñu fa nekk forage bi mënuñu ko tuddee ab forage mënuñu ko tuddee château d'eau mënuñu ko tuddee leneen ndax dëkk bi dem na ba capacité dëkk bi dépassé lii fi nekk. fajukaay am na lu ñu fi tabax loo xam ne kenn mënu koo xam sax noo koy tuddee ndax koy faj nekk fi actuellement dëkk bi bu ci nit amee problème santé dañuy takk charrette yóbbu ko ci commune bi. te ngembe ay pile dëkk boo xam ne ay pile de mille et quelques personnes ñoo fi nekk loolu jaaduwu fi daf fi war a am fajukaay ndax dëkk yi ko gën a tuuti yëpp lii ma lay wax am na fi hôpital bi nga xamante ne tam ñoo ko fi am hôpital bi te bu ko tamit état dugal ci loxoom ñu mën koo eggale am ay médecins yu baax am ay ambulance am yëpp ñu mën ñoo fayal suñu soxna yi ndax fii ku jigéen ju fi am doom da ngay sonn ci ay jafe-jafe. njàng mi ak njàngale bi ni kii tàggat bi nekk itamit leneen lu yitteel askan wu yeewoo ci dëkk bi di Ngembé. école bi soo xoolee école bi fi nekk depuis 98 lañ ko fi tabaxoon ba léegi da nga ko fi tabax ñetti classe yooyu ñu defoon ci école bi benn maître moo fi nekk boobu ba suñu joon yàlla tey am na fi sax jamono yoo xamante ne eh, école bi kenn jàngalewu ci te xam nga ne benn maître mënut a jàngal ñetti classe ñun ki sa Sénégal lañ bokk. ci senegal lañ bokk ba tax na ñun soxna yi bëgg nañu jàppale ci lu bëree bëri tey ku ci mel ne ministre de la femme ñun dañ koy dégg rek di dégg ay lu muy def ci soxna yi waaye ñun waa waa Ngembe amuñ ci dara te ministre de la femme war nañoo mën a jàppale ci wàllu formation yi ak yéen yéen ak yeneen Moustapha Diop mii di financé jigéen ñi te Moustapha Diop ñun waa Ngembe dañ koy dégg rek waaye mosuñu koo gis askan bi yeewoo ci Ngembe di ñaawlu nag yàqu bi nga xamante ni seen mbay mi mu ngi koy yàqu ndaxte gis nañu ne kat amuñu benn yoon unité de transformation maanaam jumtuwaay yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo ba mën a aar seen meññeef yi loolu moo tax sax ba ñuy jiixi jaaxa ne ñoom sénégalais lañu comme ñeneen ñi wala déet Gorgui Samba Ndiaye Thiès Walfadjri góor gi Samba Ndiaye foofu la ñuy bàyyeekoo delluwaat sa Touba ca marché Ocass ñii di jaaykat yi xëy eh, daal di eh, jom mi jummet ndax daal lu toll ci juróom benn cantine la ay Samba bay ubbi daal di fa yóbbu lu ëpp sax ñaari million eh, si ay koppar doon loo xam te nag duguleet saa su nekk ñàkkum kaaraange gu mat sëkk la jaaykat yooyu di dundee kon ñu teewlu leexal yi ak Mamadou Makhtar Sarr. lu jege ñaari million ñu yóbbu ko loolu la ñu mekk ci cong gi nga xamante ne amoon na guddi biig ci marché Ocass bu Touba lu tolloog juróom-benni cantine ñu ubbi ko jël koppar ya fa nekk mu jur na commerçant yi yëkkati seen kaddu dajji nañ fi juróomi place juróom-benni place place bu ñu njëkk a dajji fa million cent vingt cinq mille beneen place bi jëleen fa cent cinquante mille beneen place bi jëleen fa ay trente et quelques mille noonu leen ko toppoo ba place yëpp jeex tàkk te amuñu fenn fu ko mën a jooytoo. te sonn nañ ci maar nañ ci te mënuñu koo jooytoo fenn nag ndax heure demee ci délégué bi wax ak moom délégué bi lim nuy wax mooy xaalis ku ñu jël sa xaalis da ngay ñàkk. dugg ci marché bi toog ci place day di dóor ay coffre di dóor ay bunt te gardien mënu koo gis te gardien mënu cee wax dara. ñun loolu mooy sunu problème. ñoom commerçant yi dolli ci ne bi mooy ñaareel bi yoon ñuy dajj ay boutique fii ci marché bi. sunuy place la njëkk a dajji même pas deux mois bi bi ñu defee Kosa Kosa ba léegi amul suivi. fa dajji woon nañ cinq places. place ba ñu fa njëkk a dajji yóbbu cent et quelques mille mooy ci six places yi. te ba léegi nii fo tey la ñoo ci am. mbir mi nag jur commerçant yi ne dañoo seetlu ñàkkum kaaraange gu jéggi dayo ci seen bërëbu liggéeyukaay bi li ni mel nag tax. jokki ci nu mu gën a gaawee. ñàkkaaraange daal moo fi nekk te ci marché Ocass bépp la marché Frot ak marché bi ñoo yem lenn lu ñuy jooy li ñuy jooy lenn la ñëpp koy jooy. li ñuy ñaan kilifa yi mooy bu fekkee laat ka mën na cee jooytu ñun moom lañ koy jooytu ndax mënuñoo mars ndax fii Touba la mënuñoo yanu ay xeer nu mënuñoo sànni mënuñoo baare bi ruut mënuñoo def dara mënuñoo taj marché bi ndax lépp ci kilifa lay dox laat ka mooy suñu kilifa ñu ko ciy jooy. du ko ci wax bu ci manee dara mu def ko ci bu ko ci dara ñun ñu doxanteeg kilifa gi yor marché bi ñu xool nu ñuy def ak moom. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. dañuy wutali ji Sindia Lorom foofee nga xam ne nag daal nañu yëkkati seen i kàddu jëmale ko ci nataal bu ñàkk gin bi nga xam ne nii waa Jeune Afrique defal nañu ko kii di Serigne Touba Khadimu Rasoul ñoom bañu ko ñaawloo daal nañu si teg it ne daal ne daal faaw ñu tere njaayum boobu lépp yéen kaay fii ci réew mi teg si gën a yokk seenub xeex ci mbirum terrorisme yi nga xam ne lëmbee na bi jamono ji ak li nga xamante ni moom mooy mbirum góor jigéen ñu teewlu leexal yi ak kii di ko euh, nekkoon eh, Thierno Daf yi nekk ci diiwaanu dëkk bi di si njalooroom yépp yëkkati nañu seeni kàddu ngir ñaawlu nataal yu bon yi ñu teg ci ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Xaadimu Rasuul Seydina Bamba ak Alaaji Malick ay cousin lañu ay frère lañu boo laalee kii laal nga ko ci des donc il fallait pas Jeune Afrique di wax wax ju ñaaw ci kaw deru Serigne Bamba du yoon dafa am loo xam ne boo laalee sunu kilifa dina yi laal nga ñu ñun parce que ñoom ñoo ñun lu ñu am tey grâce yàlla yonent ñoom la kon am na yoo xam ne waruñ ko mën a def. dessin yi nga xam ne dessin yu bon la ñu koy def ci suñu sëriñ suñu yaakaar boo xam ne yaakaar bu mag la mooy Sëriñ Tuuba te loolu képp ku mu laal kër gi mu laal bu laalee xam na l'islam c'est universel ñëpp. képp koo xam ne yaa ngi nooyoo jullit loolu waru ci kontaan muy tijaan muy murit muy laayeen ngir lu ni mel nag bañ a amati ñoom askan wi nee nañu lu ñuy ñaan moo di yéenekaay woowu ñu tere ko ci diiwaanu Sénégal gi yëpp ñuy ñaan le président Macky Sall loolu Jeune Afrique mu fexe ba dootul dugg ci niveau Sénégal nañ ko bari définitivement ba nouvelle ordre dañ koy jële ci sunu xol bu naqari dañu bëgg état bi jëf jël ci ay mesures yoo xam ne loolu dina freiné wu ñoom ña ko defoon mu jaar ak ñoom foo xam ne dootuñ defati lu mel noonu parce que kat lii ram ci ñag bi la dem buñ ko baarewul ci Serigne Bamba dinañ ko baaree dinañ ñëwaat ci Alaaji Malick te ñun loolu la ñuy bañ. askan wi teg nañ ci ñaan nguur gi it mu yokk daan yi ñuy daan lépp luy xeetu terrorisme wala luy xeetu ngóor jigéen. jullit doo faagaagal doo faat bakkan jullit buy naan day faagaagal di faat bakkan jullitam des na góor yal nañ ci yàlla musal parce que loolu day delloo réew ginnaaw day andi bekkoor ci réew day andi tumuranki ci réew kon loolu war nañ ci taxaw dindi ko ba mu set wécc. ñu ngi ñaan suñu autorité étatique yi ñu jël seen matuwaay ba lu mel noonu ñàkk mu mu sori Sénégal ñu koy dégg foo xam ne feneen bul bul Sénégal. Sindia Laurent diiwaan la gu bootu ci biir commune bu Sindia ay jéego yu ndaw ñoo dox digganteem ak dëkk bi di campement Ngeekoox Mbour Géej rajo télévision Walfadjri Thierno Daaf jaajëf Thierno Daaf tàbbi ci géewug politique gi ñu ngi dippee koon seenub kuréel yaakaar gu tas ëmb ay ndaw ñoo xam ne jamono ci daal seen yaakaar tas na ci njiitu réew mi ni mu yoree koon réew mi wala sax na mu leen taxawoo sa banlieue ba rawatina sa Pikine nee nañ daal kii di njiitu réew mi dalee na wan gannaaw ba tax na ñoom seen kuréel googu dafa jokk ngir daal di jëlee kii di Macky Sall ci nguur gi ñu teewlu seen i kàddu ak Théodore Semedo yaakaar bu tas lu ko lenn waral lu ko ludul ñi nga xamante ni seen yaakaar dafa tas ci APR yaakaar ak Benno Bokk Yaakaar ñi nga xamante ni démb vraiment ñoo ñëw fii promettre ñu ludul jeex te alors ko dafa ñu si dara bientôt quatre ans gisuñu dara député yi lan lañ ci waxoon dañu dikkoon ni audience audience publique lañ ñu fi woon chaque mois dinañ ñëw xam jafe-jafe askan bi dem exposé ko en l'assemblée pour mu mën a faju mais bañ leen falee lañ leen gëj gis jafe-jafe ndaw Pikine yi mooy liggéey ñi nga xamante ni dañ leen faloon ñu nekkoon ay conseil économique ay conseil économique ils ont ñi ñu faloon ñu nekk ay conseil environnemental dañoo échoué parce que environnement zéro social zéro femme yaa ngi nii financement yi ba tey génnul jeunes yaa ngi nii ba tey kenn amul xëy Pikine ngi mel ni sabar gu tas waaw Fass Mbao ngi nii dañoo am problème parce que ñu ngi ci mi agression baa fa mel ni tulleeg maa leen am amul lycée buy répondre de son nom lycée lycée baa ngi noonu zone de recadrement bu Kër Massar baa ngi noonu sàkket la ñuy jàng te état bi dañu woon dina régler loolu moom bu mu fàttali ñun dañ ko folo pour mu créer ñu ay conditions yu favorable yuy permettre ñun ñu mën a dund tranquillement mais pas fal ko mu yokk suñu stress. gis nañ fi le cas par exemple Barthélémy Diaz ci seen Benno Bokk Yaakaar boobu ñoom ñu nekk seen biir ku ci dañ lay génn bàyyi la nga dox lu la neexee nekk ci instance yi mag a mag yi tey jii askan bi bëri na ay jeunes yoo xam ne je donne un exemple les jeunes de Colobane par exemple ñu tëj leen ay vingt ñu ngi ci kaso bi tey jii am na ñoo xam ne ni dugg nañ barki démb leen lañ leen génne Barthélemy Dias dañ koo jël yóbbu ko mu nekk ci biir euh, mairie di di gérer te dafa rey nit taxaw ne man rey naa nit alors léegi ñooy justice boobu noonu mu ñu waxoon fan la ko teg tey jii mbirum homosexualité yi neuf neuf nga xam ne neuf association yi nga xam ne ko signalé Kaolack jouru gàmm Euh, onze góor jigéen ñu jàpp leen xëy suba jox leen seen téléphone libéré leen ba léegi nii kenn waxu ci dara jéem a dénoncé wax askan bi ñu signé wu ci liste électorale yi parce que ñun on n'est pas violent mais dinañ ci fexe ba jëlee ko ci niñ ko fi tegee woon banlieue ba la ñuy des bërigo bu fees du yëngu boo déggee mi xarañ-xarañ yi dafa fekk ne dara nekkul ca biir looloo dal kii di sa Seck ak Malick Gakou du samay kàddu kàddu ya ndaw yu APR ya nekk kon sa banlieue ba ñoom ñoo wax lu ni mel di kon teg ci ne kon ñaar ñooñu dañoo lajj ci li nga xam ne moom mooy élection yi ñu weesu ñu teewlu kii di Rokhaya Tidiane Diouf moom moo yore seen kàddu dénk na ko Théodore Semedo cité fa mu dëkk Géejawaay joxuñu ko carte d'identité nationale am ba mu mën a voté ji kon fii ku mënta gañe maire mënoo yaakaar présidentielle ku sif naaroon jaar jàll la fii président Macky moo ko moom ndax mënul ñàkk ci politique seen i ambition moo bari keroog ndaje moomu defe naa ni moom lañ fi mës a ndaje ñun APR xeex du fi jaaroon la ñu ngi ciy jéggalu sénégalais yi ndax defe naa ni bañ ko jógee président Macky mi nga xam ne moom moo ñu njaboote woo na njabootam yëpp daal di ni leen li ngeen di def noonu neexul ma honoré wu leen sénégalais yi dama bëgg ngeen changer comportement l'heure n'est plus aux querelles l'heure est à la mobilisation je pense que ni sénégalais yi yaakaar nañ ci ñun leneen lu dul ay xeex ñu àddu ci xibaar bi ci gàttal kii di Pape masata jàkk moom kii di dikk division investigation criminelle daan na ko woolu ni ki kon suba doomu Lamine Diack boobu nekk patron bu euh, Pamodzi moom nag dinañu ko dégg ci li nga xam ne ni moom moo aajowoo euh, kon la ko lëkkale ak euh, ki nga xam ne moom mooy i 2 kon ñu daal di jàll ci mbirum tàggat yaram ci wàllum football ci tàggat yaram euh, Ligue 1 sénégalaise li nga xam ne moom mooy. lu ay bés bi ñu door ci euh, kon tey jii euh, gannaaw bañu ñu amaloon ab euh, kon li nga xam te ni moom mooy noppaliku ci diirub fukki fan li ñu naan trêve ci programme bi tey jii fi nga xam ne mooy stade Demba Diop bu ñeenti waxtu jotee olympique bu Ngor mooy laale ak ñambuur bu juróom-benni waxtu jotee ñaari tali di laale ak US Wakam ca Ndar Géej bu mbuux mooy laale kon ak Mbour Petite Côte. ba tey ci mbirum euh, tàggat yaram euh, si Ligue 2 bi lañuy euh, daal di tàbbi mbirum football ñaari match nag lañuy ñuy xaarandi ci fukkeel ak ñaareelu ayu bés bi ca stade Amadou bu géejawaay bu kon ñetti waxtu jote le AS Pikine di laale ak Etix bu juróomi waxtu jote Dakar sacré mooy laale ak ASFA ci mbirum kon biti réew. li di euh, Ligue euh, des champions Ligue des champions bi huitième de finale bi tey ci euh, talaata ji la ñu koy amal PSG mooy laale ak Chelsea ki nga xam ni moom mooy Benfica di daje ak Zenit. yemoo ko fu ñuy ndarkeppee xibaar yi xaaj bu njëkk bi jaajëfal ñi si jàpp ba mu yemb kii di Ousmane Sène ki nga xam ne moom mooy Aïssatou Diagne ak Aminata mbay ci wàllu maquillage bi yéen it cant ak ngërëm ñeel leen ci teewlu bi xam leen ne seen kóolute mooy suñu mbégte di ñaan borom bi nga xam ne dara teewu ko mu aar ñu làkk ñu fa yàq yeggul ñaareelu xaaju xabaar yi ak mam Anta Ndour gannaaw ba ma ko nuyoo ba noppi mam Anta kàddu gàngook